garaaw na de amul garaaw. am na évolution am na évolution problème de fond. boo xam ne moo engendré insécurité bi. et ça c' est les sociologues même qui posent le débat. gis nga li muy wax l' extrême pauvreté. la paupérisation de la population. dafa indi ay éléments yoo xam ne ak ay facteurs ak injustice bi mu wax noonu ñett yooyu boo ko combiné nga dugg ci yenn zones yi. sera très très très difficile d'assurer la sécurité je donne un exemple Sénégal laa gis ngay jóge Ndar dawal ba dakaar kenn du la contrôler oto je fait plusieurs fois mm-hmm. jóge naa festival jazz mbar dawal moom bu dugg Dakar ba gaare policier du la arrêté xool lan moo yëpp lan nga nekk si lan moo yëpp si biir oto bi avec nos frontières poreuses aussi. Mm-hmm. non mën nga wax mën nga dugg suñu police. dugg seen toile génn te duñu xam. non alors gis nga facteur yi muy wax noonu dafa bokk du ay su li ñuy wax saupoudrage mooy le fait que ñu ne wéy rey na nit rek ñu def opération coup de poing mais loolu dafa war a nekk loo xam ne day sax de manière régulière demal ci jardin public yi à partir de une heure du matin nga gis xale yi li ñu fay def. et pourtant même pas à un kilomètre il y un policier. papa li pourtant d'ailleurs euh, kii di ali Aliou Ndiaye wax na ko euh, nee na euh, opération coup de bi du fi yam dinañ ko continuer dinañ ko gis. à chaque fois bu ñu génnee loolu lañ lay wax parce que xam nga lu tax. 64 mhm. coups couteau bu ñu jam nit opération du fi mhm. xaaral ba gis ba gis beneen dans trois mois. or ce n'est pas ça parce que li ñu gis en réalité mooy zone yi nga xam ne. c'est pas c'est la réalité aussi ah zone yi nga xam ne yaa benn extrême pauvreté am tamit li nga xam ne euh, moo di lu mu wax c'est très important injustice nit léegi day jóg fajal boppam parce que xam nga ne bu yóbboo nit ki du faj problème am du réglé yow yaay am dëgg dem justice dem tribunal di tiit yow yaay am dëgg laa wax de mu leer na la yow yaa am dëgg nga yóbbu nit ki nga xam ne moo la tooñ tribunal au leen nga nekk à l'aise ngay tiit pourquoi parce que yaa ngi xalaat ne waa ji peut-être am na benn bras loo am na kenn ku mën a actionné ñu wëlbati affaire bi ba yow même dëgg dootoo am dëgg. mais Pape est-ce que foofu a doole tamit injustice parce que parce que da ngay gis boo yoo xamante ni comme ni mu ko waxee dangaa xëy gisoo loo lekk gisoo loo naan. et puis feebar yaay feebar et puis à côté. à mm-hmm. côté de l'injustice exubérance. à côté de l'injustice mm-hmm. exubérance bi ngay gis à côté mooy nga gis xale boo xam ne amul lu mu ndekkee mu gis benn doomu kilifa di dawal benn oto boo xam ne ça coûte cent millions li may wax ni ñëpp a ko xam ah, ku dem Almadi bi gis iPhone 11 nga gis booy nu ñu def d'ailleurs c'est tellement vrai que euh, soo seetloo waykat yi mm-hmm. déglul waykat yi rek di nga xam yenn doom seetul temps temps Ablaye Wade yan doomu nit lañ daan way nga déglu léegi yan doomu nit la ñuy way <laughs> dañoo transmet way te xoolal bu baax li ma la wax mën naa la wax man ñan lañ leen way ak ñu ak ñu ñuy way léegi boo yooyu nekk ci benn exubérance di foyee xaalis <laughs> Il y a, il y a une mais xoolal booy yi ñu way. booy yi nekk almadi di blow. Hmm. léegi yeneen booy ñooy blow almadi hmm. léegi nga gis booy yooyu di foyee xaalis yow déggoo fi ñàkk yaatal nga fi dégg ñu ne benn kër ministre doom ji dafa sàcc cinquante millions ñaata ministre nga fi dégg loolu am na ñoo xam ne dañoo nëpp nëppal seen bos hmm. comment on peut million de francs CFA ba sa doom mën ci am accès di ko jël mauvaise répartition des donc lu tuuti loolu fóot xam nga lu muy jàpp. cocaïne cocaïne. 65000 hmm. ay doomu kilifa rek ngay gis fi ñoo koy jël. di kon utiliser. 65000 deux fois le SMIC sénégalais. Hmm. ñaata gis bi si ñaata drogue dafay gis léegi dans ce pays. tournante la ba pare xale yi ñu leen di gis ñuy naan bière boo xamante ni muy Jakarta. ak salañ salañ. butéel lu ndaw. xam nga ku jam nit 64 coups kooku nekkul mhm. parce que deux coups de couteau rey na nit. Mhm. soit il n'est pas lucide soit am na lenn loolu y a quelque dama leen di dolli benn moi j'habite à à Pikine. Mhm. Euh, fi ëppoon insécurité. Euh, parce que mën naa wax ni sax mooy réceptacle insécurité. mooy baar bi nekkoon foofu le fameux Saf Baar. du coup président boobu moom waaw beneen dëkk président Guinée Bissau président Guinée Bissau moom moo ko moomoon mais xam nga euh, am na benn heure gis nga gars suñu mandé gis na bu ñu génnee léegi imagine fan lañu war a jaar parce que dafa nekk ci point stratégique bu banlieue bi ñii dañuy dem def parcelle ñi jaar ni dem Thiaroye ñi jaar ni dem waaye tooloon nañ jamono boo xamante ni Pikine kenn nangoowul romb foofu population yi dëkk foofu def nañ ay pétition imam yi def nañ ay marché mais baar ba mosu faa jógee au contraire waa ji da kaa tabax sax yokk mhm. ça veut dire que ci point yi gën a stratégique buntu Pikine fépp fu baar nekk sàngara di daw ñu bàyyi leen ak ay licence mhm. booy di am accès ci ci sàngara soosu te de manière innocente euh, ndeysaan dama am fu ma toog kooku ñëw na sama doom bi dafa am lu defoon pour moom doom bi am amul 18 ans mais xale bi jàllale nañ ko délinquant mineur la jéemuñu xool nan lañu ñu koy récupérer wala dara mais imagine suñ ko jëlee bu ñu ko sàndee ci ci kaso bi wala ñu corriger ko il devient kayit su génnee à la maison ak ci société bi amul beneen seconde chance benn chance la am pour survivre mooy na dem ci mbedd mi mhm. day romb Pape Alé Pape Alé solu sol pour moom mhm. kii mu ngi yore iPhone moom mu ngi lijjanti téeméer bu mu lekkee may ga il n'hésite pas du sax xalaat yenn agression yi bu ñu lay agressé ñun du jéemuñu sax calculer parce que nit boo xamante ni àndatul ak sagom yambaa gi mel ni gerte caaf ci dëkk bi. Mhm. booy diliyaa bi kenkaari bi ñu dem jël ko. kon dafa am yoo xamante ni justifié wu ko mais moo ko expliqué. Mhm. et yenn zone yi nga xamante ni moom moo nekk ci ci ci ci ci du Sénégal yëpp la. Mhm. parce que nit ñi. nit bu demee ba amatul dignité lekk amul xëy amul benn espoir pour moom lu. moom survivre rek la gis. et malheureusement. Euh, du ñu toppatoo li ñu war a saafara. Uh-huh. mais dañuy def genre peinture ni laso rek mais le problème reste et demeure. le problème reste entier. nga gis doomu kilifa yi fii. patron boo gis doomu ay ministre la ak ay directeur nga gis xale bu jàng am ay diplôme di raxas oto. boo ko rombee dina ut lii mënu ci am lii parce que bu fekkee ne léegi jàng taxul nga am liggéey nga am métier taxul nga am liggéey léegi il faut nga jaay drop wala il faut nga ànd ak ay doomu ministre di leen defal ay ay ay lu xaw xaw ma nu ñu koy waxatee. daal cogg nekk non di leen nekk seen cogg. mais di leen seen wala di leen defal karab karab. nga toog gis kenn ku xamante ni amul woon dara nga xëy suba muy dawal ran yor ay millions di nga wuti pexe. et c'est ça le malheur dans ce pays. Mm-hmm. Pape Alé a de char. ñun dañu wax ay ay détails dañuy wax ay faits vraiment jënd ay char anti émeute benn char anti émeute bu nekk mi ngi jar deux cent cinquante te yow munoo dugal ñaari oto yu ndaw rek biir caaro yi c'est grave cinquante char lañ jënd char bu ne deux lañ ko jënd d'accord alors qu'on a un problème de véhicule parfois même pour faire des opérations la ñuy loué ay taxi les policiers là dañu mënul c'est un corps mais qui souffre alors très rapidement parce que actualité la il faut qu'on soit très rapide jàll ci beneen actualité pour terminer. parce que tey jii boo demee fi nga xamante ne mooy Kambou Diass wala nga dem. daal di nga gis oto effectivement oto yi Sénégal lañ nekk ñu ngi fii tëdd si ay ci ay caserne malheureusement nag duñ ko génne parce que tey ji oto yi waxuma la sax waxu essence mais ay oto hybride lañ yor de dernière génération mën na jël gaz mën na jël essence mais kan nañ koy def a la disposition de kii nañ koy teg mooy président bi ministre yi bu gàmmu amee bu yeneen amee mais teguñu ko pour sécurité maintenant leneen leneen li nga xamante ne bu woon naa si yokk c'est-à-dire lépp lu ñu mënti wax pauvreté yëpp mais Sénégal yi aussi ñooy seetaan parce que koñ bu nekk ku fay def ñaawteef xam nañ ko ku fay moo xam nañ ko ku fay def sumol bu mat yi jeexee xam nañ ko mais duñ dénoncé parce que léegi booy parce que xamul soo duñ dénoncé mhm. kooku moo ëmb seen sànqal malheureusement kooku <laughs> kooku moom mooy faj jafe-jafe koñ ba moom mooy ñëw ku war a ngénte mu ñëw jëgal xar joxe duñ ko dénoncé. sa devient difficile. ça devient difficile alors. même bu nekkee moom mooy def loolu sax. Uh-huh. Euh, tey jii buñ ko dénoncé wul ëllëg. bu lisulul yow mu doon. côté ñaawteef yëpp la ci kër yi la donc il faudrait que aussi ñuy jéem a xalaat côté boobu di leen jéem a dénoncé parce que booy li ñuy def léegi maa tey la uh-huh. match day am ñu dem taxaw ci buntu stade bi xaaral match bi jeex bu match bi jeexee ñu def seen kuréel daw. lu ñu dajee si mbedd mi ku ñu def résistance ñu jam la dem seen yoon c'est-à-dire dafa dem ba dañuy yëpp sax sénégalais yi lu leen neex nañ koy defee police xam nañu gendarmerie xam nañu mais encore une fois dañuy banaliser suñu. Euh, si stade la ñuy tuxee yàlla. ak dëkk bu lëndëm aussi. dëkk bu lëndëm suñu troisième actualité alors euh, euh, dinañ dinañ on va y aller très rapidement parce que quand même actualité la ñuy wax juste ci euh, membre ñoo lank bi organisé woon tey ji en concert avec les étudiants marche boobu mobilisation pour la libération de Guy Marius Sagna mais aussi.